voilà voilà donc euh, ñu fas yéene rek daal di leen euh, xibaar euh, fii si intérieur xam ngeen ne maître Ciré Clédor lii nekk avocat bu Ousmane Sonko moom ak kii di mandataire bu Ousmane Sonko bi di Ayib Daffé am na sax biir xibaar bi nga xamante ni jot nañ koo am bi ñu ñëwee si ministère de l'intérieur jotul leen bàyyi ñu dugg si biir si biir voilà maître mu ngi noonu di ñëw maître Ciré Clédor donc Dieye mën nga ñëw fi nga concentré wu tellement ma ma dem ci beneen côté. teel ma donc comme ni ngeen ko gisee noonu moom euh, maître Ciré Clédor mu ngi noonu di ñëw euh, moom ak kii di mandataire bu Ousmane Sonko di euh, Ayib Daffé ginnaaw bi ñu demee fële sa donc. bi ñu demee fële sa douane intérieur euh, daaf jotul ñenn bàyyi ñu dugg loolu mooy xibaar bi nga xam ne am nañ ko donc en tout cas ñu xaar ba xam bu ñu ñëwee dinañu rek daal di dëggal donc boobulee xibaar jëmale ko si li xamante rek moom moo di lan la ñu mën a voilà merci beaucoup. Hmm? jërëjëf yow la. ñu xaar. waaw voilà baax na wala ñu arrière tuuti. ñu kay pare ñu arrière tuuti tuuti ah c'est bon ah avec nous il est avec nous faut pas que ñu taxaw ci digg tali bi il faut cabrer le ministère de l'intérieur na feeñ voilà voilà euh, bonjour euh, dans le cadre euh, de la procédure d'exécution de l'ordonnance euh, rendue par le tribunal d'instance hors classe de Dakar notamment le l'honorable juge Thion Euh, nous étions venus cet après-midi euh, signifier la décision au niveau du ministre de l'Intérieur. Comme vous le savez, euh, dans les motifs de la décision, euh, c'est le ministre de l'Intérieur, en tout cas, euh, qui avait transmis, c'est le ministre de la Justice qui avait transmis au ministre de l'Intérieur la décision de radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales. et le ministre de l'Intérieur avait transmis cette décision, avait ordonné à la DAF de procéder à retrait d'Ousmane Sonko des listes électorales. Donc, euh, puisque désormais, euh, pour une deuxième fois, la justice a demandé, à ordonné la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales, il revient logiquement au ministre de l'Intérieur, M. Sidiki Kaba, de faire exécuter la décision de justice par ses service compétents, en l'occurrence la direction de l'automatisation du fichier dirigée par le commissaire Fiacre Badian, qui doit réintégrer immédiatement dans les listes électorales M. Ousmane Sonko. Et également le directeur général des élections, le commissaire Tanor Tiendel Sidifal, qui doit également remettre les fiches de parrainage qui font partie des dossiers de candidature pour le candidat Ousmane Sonko. Hier, nous étions à la DGE, nous avons noté en tout cas ce qu'on appelle du banditisme administratif. Euh, il n'y avait aucune élégance administrative ni républicaine. Et aujourd'hui, nous sommes venus voir le principal responsable, en tout cas celui qui est censé faire exécuter la décision de justice par ses services compétents, M. Sidiki Kaba. Également, nous n'avons nous pas pu accéder au ministère de l'Intérieur, donc euh, aussi bien moi en tant que mandataire et député, euh, l'avocat Maître Siré Dorly et également l'huissier de justice qui devait signifier la décision au service du ministre de l'Intérieur. Donc euh, il y a eu un déploiement policier impressionnant que vous avez tous pu constater et qui nous a empêché, interdit l'accès. Donc euh, nous avons pris acte et nous déplorons en tout cas cette Euh, attitude euh, que je dirais une attitude frileuse, une attitude qui manque d'élégance républicaine, de courtoisie administrative et de la part de monsieur Maître Sidiki Kaba, qui, il faut le rappeler, est un ancien défenseur et promoteur des droits de l'homme, puisqu'il a dirigé plusieurs organisations de droits de l'homme, il est avocat, il également, il a été président de la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme Donc nous pensons que normalement, ils devraient respecter les règles élémentaires, en tout cas des libertés fondamentales. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et nous savons, euh, cela démontre que c'est lui qui est l'auteur, en tout cas, et le commanditaire de, ces de cet ostracisme, de cette habitude arbitraire envers le candidat Ousmane Sonko, parce qu'au euh, niveau de ces services, aussi bien la DGE et la DAF qui refusent de s'exécuter et qui refusent d'exécuter l'ordonnance du président du tribunal d'instance hors classe. Donc, euh, mais cela ne nous empêchera pas de continuer notre travail de défendre les droits du candidat Ousmane Sonko. En tout cas, euh, nous allons faire de prendre toutes les dispositions pour qu'il puisse déposer son dossier de candidature et sera candidat, Inch'Allah, à l'élection présidentielle du 25 février 2024, malgré euh, ces manigances, malgré ces tentatives d'obstruction, de dilatoire, de cache-cache des autorités, ministérielles et administratives qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités et qui ne veulent pas se conformer à la légalité, qui ne respectent pas la justice, qui ne respectent pas les décisions de justice. Donc ce qui est déplorable, ce qui est de l'arbitraire et de la forfaiture. Euh, voilà donc euh, tey man euh, en tant que mandataire ma ànd ak maître Ciré Clédor li avocat ak huissier de justice bi dañuy ñëwoon tey ci ngoon au niveau du ministère de l'Intérieur pour jébbal décision ba nga xam ne moom la président tribunal d'instance hors classe de Dakar euh, juge Ousmane Racine Thion jël euh, ne ñu annuler radiation ba nga xam ne euh, daf nañ ko Ousmane Sonko ci liste électorale yi joxe ndigal tamit ñu delloo Ousmane Sonko ci liste électorale yi xam ngeen ni euh, ku war a delloo Ousmane Sonko ci liste électorale yi ministère de l'intérieur la mooy ministre de l'intérieur parce que bu ñuy génnee Ousmane Sonko ci liste électorale yi ministre de la justice moo binn ministre de l' intérieur ministre de l' intérieur joxe ndogal direction de l' automatisation des fichiers pour mu génnee Ousmane Sonko ci liste électorale bi teg ko ci jaay doole ak loo xam ne lu dul yoon. parce que ñëpp xam nañu ne Ousmane Sonko contumace bi dëpp bu ñu ko jàppee contumace ba naxasaay na yaakaar naa ni décision bu honorable juge Ousmane Racine Thion jël leer na nañ balaa moom saaba si fay décision bu mu jëloon leer na naññ Sénat tamit. commission électorale nationale autonome joxe woon na injonction pour ñu appliquer décision yooyu mais malgré tout dañoo gis ni euh, direction de l'automatisation des fichiers nga xam ne commissaire Fiacre Badiane moo ko jiite dañoo bañ delloo Ousmane Sonko ci liste électorale yi direction générale des élections nga xam ne commissaire Tanor Thiendella Seydi Fall moo ko jiite dañoo bañ delloo jox Ousmane Sonko ay fiche de parrainage am te teguñu ko ci dara lu dul jalgati yoon ak jaay doole. léegi nag ñu ñëw ci ndeyu mbill bi mooy nga xam ne mooy ministre de l'intérieur nga xam ne mooy seen kilifa te yaakaar nañu moom moo leen di jox ndigal ah moo leen di may fit pour que ñuy jalgati yoon bi tey ñu ñëwoon ko jébbal ko décision bi laaj ko mu jël ay responsabilité parce que jàpp nañu su fekkee ni malgré que euh, léegi politicien la mais dañoo jàpp ni avocat la quand xam na luy yoon également nekk na fi jiite na fi ay kuréel yu mag ci àddina bi yoo xam ne mu ngi jëm ci droit de l'homme ak ak yelleef doomu aadama donc su doon lool rek war na respecter ak yelleefu kuy Ousmane ko donc tey ñu ñëw nag ministère de l'intérieur mais malheureusement comme nu mu demee démb DGE ak tey suba CDC caisse de dépôt et consignation bàyyi ñu ñu ñu dugg dañu fekk dispositif policier ñu préparé xaar ñu ñu ñëw ba ci bunt bi bëgg a accéder ñu ne ah ñoom de instruction yu ñu leen jox en tant que policier mooy ñu téye ñu si bunt bi donc euh, ñu nag euh, maître Ciré dool yi jël nañu acte te wax ni tamit euh, lu ñu waroon daf daf nañ ko huissier bi tamit liggéeyam bu mu war a daf daf na ko léegi lu ci des ah nañu topp affaire yi ba mu sës incha allah Ousmane Sonko dina nekk candidat euh, nañu déposer dossier de candidature am te yàpp jàpp nañ ni ak nu mu demee nii conseil constitutionnel dina ko valider incha allah donc loolu daal laa amoon lu may wax di gërëm ñëpp di sant ñëpp di naan en tout cas bu kenn découragé bu kenn jaaxle bu kenn tiit nañu ànd ak dal nit ñi dem retirer seen carte d'électeur pare. le 25 février 2024 ñu jëlee fi Macky Sall ak Amadou Ba nga xam ne moom la fi bàyyi mun naan day def continuité te yaakaar naa ni continuité am boobu moom moo si moom rek la baax ak ñoo ak ñooñam. est-ce da ngeen dellusiwaat fii si ah, ñun lépp lu ñu war a def daal nañ ko def euh, yaakaar naa ni loo xam ne pour defendre droit wu Ousmane Sonko. mais lu ci ëpp solo mooy conseil constitutionnel ndogal bu mu war a jël suñu déposer dossier candidature Ousmane Sonko ñii ñëpp dañ leen jox ay pàcc responsabilité mais. effectivement moom mooy ministre chargé des élections donc dafa war a tëddee njaaxaanaay donc tey candidat su indee représentant am war nga ko mën a recevoir wala laajte ay service am moom su fekkee disponible laajte ñu recevoir ñu waaye gis nañ ni euh, daf ñoo tere dugg ci biir ministère bi bloqué ñu euh, maanaam teg ko ay policiers te yaakaar naa ni processus électoral bu mu nee woon moom dina organiser ay élections yu transparente ah ñun de gëmuñu ko ñun daal lu ñu jàpp te lu ñu doon wax mooy nañu nommer un ministre chargé des élections boo xam ne day tëdd njaaxanaay du bokk benn parti mais ñëpp xam nañu Sidiki Kaba APR la bokk te mënul fi organiser élection yu transparente élection yu jub ak élection yu inclusive parce que yaakaar na ni moom euh, dafa war a jàppale Amadou Ba parce que jàpp nañ ne Amadou Ba suñ ko jàppalewul mënul gagner parce que kenn neewul ci ginnaawam waa APR sax gëmuñu ko donc euh, loolu daal mooy mbir mi moo tax ñu bëgg a def le tout pour écarter Ousmane Sonko waaye euh, seen pexe yi yëpp. yàlla ak dogalam tamit Ousmane Sonko dina bokk dina nekk candidat incha allah. Euh, euh, ma may maître Ciré Clédor Ly mu sànni ci kàddu yaakaar naa ne lu ma waroon wax yëpp wax naa ko jërëjëf.